Ousmane Sonko da dinay corriger bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Doudou Wade Doudou gannaaw ba mu demee ci rajo Futur Média yëkkati ay kàddu daal teg li mu xamle woon moom Doudou Wade mooy fii ci doonu Sénégal ku jég politique gi nag PDS moo ci teg tànk waaye nag du benn yoon parti bi nga xamante ne moom mooy Pastef yooyu kàddu nag Ousmane Sonko daal dina koy weddi ba mu set teg ci nag di ko naqarlu ndaxte jàpp na ne fii ci diwaanu Sénégal ku jég politique gi Pastef mooy numéro un ndaxte li koy firnde du lenn lu dul élection législative yi nga xamante ne Pastef si la njëkk bokk fii ci diwaanu Sénégal rek daal dina koy leeral ndaxte parti bi nga xamante ne moom mooy Pastef fële ca diwaanu Touba am na fu lu toll ci juróomi téeméeri voix. moo nekkoon yoon bu njëkk bi nga xamante ne Pastef ci la doon bokk ci ay élections législatives. waaye nag élection locale yi ñu génn maanaam gox-goxaat yi ak li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi nga xamante ne jot na fee jàll Pastef dafa wane boppam bu baax a baax lëkkaloo ci nag ak coalition bi nga xamante ne moom mooy yeewee askan bi Ousmane Sonko nag nee na Doudou Wade loolee dong doy na ay firnde. Ousmane Sonko ba tey yamu ca mu ngay wéy di tontu ki nga xamante ne moom mooy Doudou Wade nee na ko nag na dem xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy élection locale yi ñu génn xoolaat bu baax a baax résultat yi ndaxte Pastef moo jël raw gàddu yi ci département yu bari fii ci diwaanu Sénégal rawatina fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Mbacké ci fàttali nag coalition Yewwi Askan bi te kenn jiitewu ko ku dul Ousmane Sonko fële ca diwaanu Mbàkke ci élection locale yi ñu génn am na fa lu toll ci 29 037 voix mu jiitu euh, coalition bi nga xamante ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar moom mi nga xam sax moom mujj jël deuxième fële ca diwaanu Mbàkke mu am 28 013 voix mu nekk nag écart bu am importance boo xamante ne nemmeeku nañ ko ci yile élection nga xamante ne nag mu ngi toll ci 1024 voix yoo xamante ne nag moo dox ci seen digg ñoom ñaar ak ci yooyu élection ba tey coalition wàllu Sénégal te ki ko jiite nag di président bu groupe parlementaire liberté et démocratie bi nga xamante ne moom mooy Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly moom moo jël nag li nga xamante ne moom mooy ñetteelu place bi mu am 20 316 voix yoo xamante ne nag ba léegi tuddaguñ fi benn yoon parti bi nga xamante ne moom mooy PDS Ousmane Sonko nee na nag bile tontu la jagleel ki nga xamante ne moom mooy duduwaat Wade bu PDS.